Assalamualaikum mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokk yi teewul ak seetaan sen sen bu mag bi di Kéwoulo TV comme seen émission yu jotaayu xam-xam ngeen ci and ak seigne mortal tawfiq soko soo ko chaque semaine da ñew waxtaan ci ben feebar ba ñaar ba ñett leeral ko faj amna ci luma ma amna ci luma jang li nga xam dama ko donnu moy sama mam dakalan def sama wajuru gor def ko lolou dama ko donnu li nga xam ne si maanaam dama ko jàngi mooy lu mel ni xaatim lu mel ni rawxaan lu mel ni xuddaam lu mel ni jinne lu mel ni tur yàlla loolu dama ko jàngi waaye lu jëm ci wàllu faj ci garab ak ci reen dama ko donn lu jëm ci wàllu xam-xamu tur yàlla werd xam-xamu rawxaan xam-xamu jinne xam-xamu xuddaam yooyu moom dama ko jàng ba am ci ay ijaaza am ci ay diplôme tàmbali ko pratiquer ci rajo yi bari fii Sénégal jaar eh, eh, ci rajo yu bari jaar Kaolack Thiès Mbour Ndar fatik Dakar macha allah fu ci bari ci media yi ñu jaar ci ba yalla dogal tay ñu ñew fi ci kewlo TV wa tay sama ma doon limal ñetti febar yi nga xam ci dañ koy fajj bi ci njëkk damay tambalé ci ndoxum city waye man febar bu ma wax dama la koy tasal leralal ko bam mu leer nañ ni ba ki deglu wala muy seetaan vidéo bi bu ko xoolee xam ne kat man li moo dal ndax li may wax day méngoog la nekk ci yaramam bu ñu duggee ci ndoxam siti feebar la boo xam ne si ci deret lay nekk moo tax mu naqaree faj beneen bi feebaru ndono la sa waajur jigéen bu ko amee nga ko am sa waajur góor bu amee mën nga ko am sa maam amee mën nga ko am moom feebaru ndoxam siti feebar la boo xam ne si maanaam bari na lu mën a yàq ci doomu bi ci ay cër amna na ñoo xam si mën na seen wé da ngay gis ko xamni ki kii wey day lakk ñu kukk ndoxam si moo koy def amna na ñoo xam si seen bët da ngay gis ko xamni ki ay bëtam li ci wéx du wara wéx tal day mel lu am ay taasi ñuul wala ay taasi xonq ndax bët dafa am lu ñuul am lu wéx li wéx dafa wara wéx tal li ñuul dafa wara ñu kuku waye waaye bu dé ndoxum ci biir man na japp euh, peru bët bi li ci wara ñuul day mel ne lu gris wala nga gis lu ron lu wéx lu ne ci ko bët bi kooku ndoxum ci mo koy def ndoxum ci dañé waral nit ki ay bëtam di xassan muy toxoñ muy génnee ndox kooku ndoxam sit dana koy def ndoxam sit it danay tax nit ki ay noppam di xasan fu mu toll nopp yi xasan muy muy jur góor kooku ndoxam sit moo koy def ndoxam sit it danay waral doomu bi yaram yi xasan muy wokkatu wokkatu boobu dafay dem ba def ay picc picc yooyu day dem ba boo ci laal day toj bu tojee ndox moom fu mu laal day def beneen picc bu yàggee mën na indi ay góom ci yaram doomu aadama bi mën na indil nit ay ër kooku ndoxam sit moo koy def ñaareelu feebar bi nga xam ne si moom tamit moom lañ ci war a teg pour waxtaane ko moom mooy feebaru hémorroïde olof di ko woyee jàngoree Kajoor hémorroïde dafa am interne ak externe bi nekk ci biiru nit ki ak bi feeñ bi génn bi nekk ci biiru nit ki mooy bi nga xam ne si nit ki maanaam day gis ni bu lekkee du gaaw a rees léegi-léegi nga nga dégg sa biir du jooy naan ngurur biir bi jooy jooy ngay seere ngay toog ñaari fan ñett doo mën a dem toilette kooku hémorroïde bi nekk ci biir moo koy def lekk yu koy indi mooy lekk yu bari pat mburu mu bëri vermicelle bu bëri macaroni bu bëri pomme de bu bëri beñe bu bëri fataay bu bëri pat boobu boo ko dee lekk te doo digéré parce que bu njëkk mag ñi dañ daan lekk bu nekk digéré moo tax yenn jàngoro yi daaw leen dal mag ñi bu ñu masaan lekk ceeb ba noppi wala ñu lekk mburu bu mu paree dañuy defal defar zi ki tax wala zi bisaab wala buy wala lu mel ne zi dànq yooyu boo ko dee naan li nga lekk day gaaw rees waaye ñun léegi dañuy lekk ba noppi nan naan ataaya wala ñu naan ndox mu sedd ataaya wala ndox mu sedd bokk naa ne li nga lekkoon day tax du gaaw rees loolu bokk ne ci li indi seere feebar la boo xam si feebar togg la ñi ngi toog toogaay bi yàgg commerçant yi jaay di toog toogaay ñoom lay ak ñi nga xam ne si maanaam ay sëfoor lañ dañuy dawal oto di toog toogaay bi yàgg ak yi ñëw toujours li euh, euh, ci ñoom lay gën a feeñ mbooleem kuy liggéey liggéey togg émorite mën na la sonal bi nekk ci biir kon noonu lay def doo baa dem bu lekkee du gaaw rees nga dégg biir bi di joyi, naan gor di mu ngi toog di seere benn fan ñaari fan du ma dem toilette bi nekk ci biti doomu aadama bi fi muy demee toilette mooy def benn picc benn bul bul boobu nag day metti nga xam ne ki ko amee day jàq sa am xelam muy tayel do ma toog doo mën doo taxaw bul boobu tànk tëjut ba génn ba ba wér mën na la indil ay problème man na la indil ay jafe-jafe bu dee góor la nga am nga am ko man naa man na laa indil bu dee jigéen la man naa waral saa bu am bi mu moom it dañ koy traité dañ koy saafara ci juróom-ñaari fan muy sabanta ay yaamin mutawaaliyatin juróom-ñaari fan yi tegaloo ci lañ koy traité bu ñëwee ci feebaru tension tension buñ ko waxee rek mooy xorom su bëri xorom su bëri moo koy indi tension bëri na lu muy roy ci jamono ji ndax feebar la boo xam ne si dañu wax ni tension ak nit ñu ànd waaye nag dafa war a régler comme deret ni mu àndee nit nit ku ñàkk deret rek génn àdduna tension mënta ñàkk waaye dafa euh, euh, bii yéeg ak bi bu yéegee ba ëpp baaxut bu wàccee ba ëpp yi baaxut tension ki mu nekk ci yow sonal la mën na waral ngay miir mën na jaxas sam xel mën na waral ngay ñàkk kattan léeg-léeg dangay jékki-jékki gis benn doomu aadama boo xam ne si da ngay dégg ñu ne la dafa dafa jugoon taxaw rek jékki-jékki rek daan na këndëng génn àdduna fekk boobu tension bi moo wàcc lool wala mu yéeg loolu moom it bëri na lu muy rey waaye moom it dañ ko traité traitement bi garab bi ñu ci am moom it ci juróom-ñaari fan lañ koy saafara moom ndoxam siti ñetti feebar yi ma wax ñetti garab lañ ko bo maanaam yépp ñoo bokk garab di leen di faj garab gi nag dañ ci boole alquran karim ndax yàlla dafa wax ni wa nu nazila min alqurani maa huwa shifaun wa rahmatun man yàlla maa wàcce alquran muy saafara waaye nag saafara gu ànd ak yërmande moo tax mbooleem garab yi ñu fi joxe dañ koy traité ci juróom-ñaari fan ci dañ koy saafara ku ko jël rek si ñett yooyu muy tension bi wàcc ak bi yéeg ak feebaru ndoxam siti ak feebaru bi ñu fi wax sànq muy hémorroïde ñett yëpp ku ci laal garab gi ku jël di nga dina mën a ci kàttan yàlla ak mbaaxam mooy damay jàngi woon damay jàng xaatim jàng rawxaan jàng xuddaam jàng jinne wër àdduna bi dem Mali dem Niger dem gambi bu dee ci biir dëkk bi kaolax fatik Ndar Touba Saloum Touba fu fi dama ko wër foo fu ma dégg borom xam-xam dem dem naa fa man damay jàngi woon ak samay maam li fi bàyyi woon ma boole ko jàngi jàng tur yàlla ndax yàlla dana wa lillahi al asmaul xusne fa doo biha man yàlla am na ay tur yu kaw yi màgg fa doo biha wooleen ma ci ku ma ci woo mooy la loolu yàlla wax 99 tur yàlla yi ni ñaan yàlla yëpp alxuraan karim indi na ko allahu rahmaanu rahimu maliku xuddoosu salaamu mominu muhayminu ba ca saburu muy 99 noom dëja tur yàlla bu ci nekk am na lu muy jariñ tur yàlla bu nekk am na secret tur bu nekk am na xam-xam léegi nag man dama ko boole jàng ko jàng xam-xamu jàng firi gént jàng istixaara jàng xaatim nan la ñuy xaatimee jàng lan mooy rawxaan lan mooy xuddaam lan mooy jinde jàng moom jàng ba am ci ay ijaasa moom mu wut lekk ñëpp waaw saafara bi ku ko soxla rek euh, bu ñëwee fii ci Kéwoulo TV woote ci numéro yi di jàll ci kanam écran bi dana dana ci mën a jot wa ilaa mu woote ci 78 612 43 36 78 612 43 36 mooy numéro boobu di jàll ci kanam écran bi 78 612 43 36 ngir bëgg lu baax ak bëgg jàppal doomu aadama yi moo tax ñu yombal ko ku woote ci numéro yooyu rek di ko mën a am ci ndëggu xéwale ndax ñu bëri dañuy bëgg gis moo taal Tawfiq sama jëm te man man dama yore daara di jàngale daara Tawfiq di jàngale xam-xam di jàngale tur yàlla di jàngale xam-xamu plante garab gu nekk xob bi li muy jariñ xas mi li muy jariñ reen bi li muy jariñ loolu moo tax xam naa ne ñëpp gis di yomb moo tax moo moo tax ñu indi garab gi fii ci Kéwoulo TV pour ku ko soxla rek bu wootee ci numéro yooyu di jàll ci kanam écran bi mën a jot ci garab gi te du am benn jafe-jafe te lépp nekk xewal. ñu ngi lay jaajëfal yooyu di jaajëfal mbooleem ku doon teewlu émission bii di jotaayu xam-xam di jaajëfal mbooleem waa Kéwoulo TV waaye tamit di ziare mbooleem ñi ñuy topp ñu ngi leen di ziare baax baax di ñu bàyyi xel. soo ko defee kon li ñu ci fàttali mooy képp koo xam ne kii bëgg nga garab googu rek ñett garab yooyu. mën nga oote ci 78 612 43 36 78 612 43 36 wala nga woote ci numéro yooyu di jàll ci kanam écran bi yeneen numéro yi fixe bi ak beneen bi ku ci oote rek incha allah koo jot dana mën a fexe ba nga jot ci garab gi kon bu ko defee ñu jox leen dig daje ci beneen émission jotaayu xam-xam ci beneen yenn ci yeneen feebar.